Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 27 février 2024 sur VIP People TV la chaîne des grands événements nous jógee foofu la ñuy dem fële ca conseil constitutionnel fekk ji fa kii nga xamante ni mooy El Hadj Mamadou Diawo ñu gën ko xam ci Mambo Diawo moom nag démb dem na foofu ca conseil constitutionnel daal di déposé li nga xamante ni mooy requêtam jëmale ko ci li nga xamante ni fin pour ñu constater li loo de ni dafa jëm pour ñu remédier jaarle ko ci carence bi nga xamante ni président Macky Sall mi ngi koy def qui dit président El Hadj Mamadou Diaw di Mamboy Diaw bu mu déposé li nga xamante requête mooy requêtam foofu ca conseil constitutionnel jaarle ko ci fin yi nga xamante ni dafa constaté que lépp loo xamante ni war na remédier jaarle ko ci carence au président de la république Macky nous ñu daal abstenir pour fixer li nga moi ni mooy élection présidentielle yi ginnaaw bi ñu bañee joxe li nga plein effet jaarle ko ci décision bi nga xamante conseil constitutionnel joxe woon ci N1 c'est 2024 du 15 février 2024 en tout cas qui dit Mamboy Diaw daal dem na foofu conseil constitutionnel daal du Google Ben la requête ginnaw bi nga xamanteni conseil constitutionnel daal lañ la décision bo xamanteni mom lañ tuddé numéro 1 slash C 2024 du 15 février pour que président de la république à son élection ba présent président dal di woté dialogue pour ñu jàppandoo date bi qui di mamboy et dal dina dugal requête am faux <laughs>